fan yee passé dafa am ku ngeen annoncé woon ne dafa gaañu bi dafa lab marine bi moo ko for kooku noonu dem na sama rakk la sama rakk la léegi nag gëstu nañ ba am samay xarit yu nekk bi léegi nag ñoom euh, démb fexe nañ ba récupérer corps bi biñ ko récupérer ñi nga xam ne nii si ñoom la daloon biñ ko andee si morgue bi dañoo demoon ne dañ koy dañ ko bëgg a sang Euh, sama xarit ne dañ koy sang ñoom ñu ne jërul ñu koy sang ndax dafa labee si ndox si ndox lay labee jërul sang sama xarit bi forcé bañ ba ba ñu dindi sangaay bi ñu dindee sangaay bi nag ñu di ko foto sama rakk sama xarit bi di ko foto ndekete ñoom euh, kooku noonu euh, sama rakk boobu noonu ni mu mel labul si géej ndax kanam gi dañ koo dafa yàqu dañ koo dóor dóor nañ ko si kanam léegi ndax affaire bi moom dafa xaw a doy waa dafa luus. mooy bu ñu jógee Banjul fu ñu ko dencoon. fi ñu ko dee fi ñu dee dencee niiw yi mooy moccuwaar yi soo foofu lañ jogee ñu dem Tànje foofu sori na ak Banjul den foofu moo am bàmmeel bi ñoom foofu moom foofu la dëkkoon moo yooyu la dëkkoon léegi foofu lañ ko suul waaw comme lu ma la wax rek mooy comme bu fa demee daal gaay seen wax yi daal bëri na daal ba pare àndut kii seen wax yi dañ dañ contredigante kii su waxee lii keneen wax leen gis naa fa ay différence so loolu moo tax nag mën naa gars yi mënuñoo si kàddu ba pare wax naa dafa am fu ma war a dem su ma demee mooy bu foto photo yu ma jël ak sample yi ñoom dinañ ma mun a wax nag kii ndax lab moo ko rey nii wala su dul loolu tam nañ ma ko wax bañ na ko ba paa bi woon sax beneen paa bu nekkoon di jëflante seen gars yi yéen foofu di oyante gars yi oo na ma téléphone si yàlla yoon bi kanami Omar di ma neexal pour bu ma def loolu ne daal naa nangu daal lu am la rek ba pare lu yàlla dogal la rek gaañu na gaañu na fa lab si géej gi waaye bu ko yóbbu fen man mu loolu mënuma la koo garanti lu ma bëgg a def daal man naa ko def toog wax gars yi expliqué wax ne wax ne famille bi ñëpp wax nañ ñooñu noonu mooy fu mu gaañowee waaye man daal su ma xel dalul daal moo tax tey bi foofu wax na leen ko because imam bi dafa wa tax laajte ne kan mooy mbokk kii ma ne ko man la mu ne ma loo bëgg a wax ma ne ko waaw man lu ma bëgg a wax mooy dañ ma wax kii kañ la fi ñëw ak kañ la gaañu ak lan moo ko lan moo waral gaañoom mu gaañu ndax ñii jëloon nañ seen téléphone oo mbokki booy bi wax leen ne dañ fi am seen ku gaañu loolu denc nañ ko ñaari semaine ñu ngi ko denca ba léegi su nañ ko door a yëg imaam bi dafa mersa bu mu yëgee loolu moo ko waxee loolu noonu imaam bi dama loolu moo fi lu xew nag xëy na am na luñ bañ a wax ma leen kii dañ ko toocoo toocoo mooy dañ ko duur su baxel benn butam bi buti left side bi mooy left but boobu dafa néewi wala soo xoolee si bakken bi si ron deret mu doon génn dem nañ ba muur ko ba jël pergal bi takk ko taka boppam yëpp dañ ko am pour firiwaat yëpp ma ne leen na foog ma def lu ma bëgg a def foog ma def ko am na góoru fa nekk mu ñu bëgg a ñu aaye ba sona ma jël photo yi mu mer génn a dem ma ne ko man faalewu ma la photo yi nii yi mooy yi mooy évidence comme mooy suñ proof ne kii nii labut dañ ko dóor dañ ko dóor because kii bakkanam bi mu ngi mu ngi mu ngi génne deret man tey ma demee suba morceau bu ñu ko laxasee woon

mu ngi am deret deret bi mu ngi génne benn tey ma leen kii dañ ko dóor paa bi mu ne ma noo dóoruñ ko werante boo xam ne maanaam moom ma ne ko kii dañ ko paa bi daal. xam na ni man jéem naa def le tout pour mën a dem Gambie waaye amu fenn fu ma jaar ma toog léegi nag samay samay xarit ñoo fa nekk rek ma woo leen wax leen ñu dem taxawul ma ko waaye ñoom ci boppam euh, dañoo dem police nee nañu wax loo xam ne nii wa lañ fa wax daal leerul. bañ demee ambassade dañ leen wax dafa lepp lapp si ndox rek lañ leen wax bëlëf bëlëfee leen ba gars yi jox leen benn kayit ñu dem récupérer corps bi denc ko. ku ma si jàppale rek ma bu su ma mënee dem sax ma ma dem fa su ma demee man man ma man ma ma plainte ma def sama plainte topp ko. ba lu ma si yoon may ma jël ndax lii nii ma gis nii lii lii ndox defu ko ñu daal affaire bi nanguwuñ mu leer nanguwuñ dara leer si fexe nañ fexe fexe ba lijjanti seen i këyit ba ba génn ko denc ko bi ma leen di wax sax dama ko dañoo bëgg koor bi ñëw fii ni ñoom nanguwuj koor bi ñëw fii ni